barabu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey jii nga xam ne moo tombeeg euh, guddi gi mu juddu sallallahu alayhi wa sallam yàlla xéewale ñu ñu nekk fii madinatul munawara sànq rek nañu paree gàmm gi nga xam ne ñu ko organisé woon euh, ci barab bi nga xam ne fi la wàcc bu yegg si ci wàllu xubaa ñi nga xam ne fa lañ ko doon séentoo di ko dalal di ko wéyal wayu am solo yooyu de dañ ci jógee alhamdulilah ñu ngi fii ci jàkk ji ànd ak suñu mbokk aji soogi siise ak doomam suñu jarbaat ak Ibrahim délégation bi nga xam ni ñoo jógee Amérique ñëw fii aj si ak yeneen mbokk yi nga xam ne sax ci yeneen dëkk lañ jógee ñëw euh, ànd ak ñun umra si plutôt ñëw ànd ak ñun umra si ñu jógee London ñu jógee France ñu jógee yeneen dëkk alhamdulilah war a delluwaat tamit geneen gàmm nga xam ne dañ ko amal ci hôtel bi nga xam ne dañ dal alhamdulilah Anwarul Madina yooyu raar yoo xam ne yuy daje la nga xam ne benn bu ci nekk sax mën naa am lu raar lay doon mu am fii ci Madina ci jamono jii ñu nekk rawatina nag ñoom ñëpp ñu dajee yàlla indi ñu ci jamono ju jafe ji ci raw sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yi nga xam ne ci dagane àdduna loolu xewal la buñ ko mënta fay xewal la buñ sant jéem luñ mën rek sant ci yàlla di ñaan sama borom tabaraka wa fayal ñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ni invitation la julli ñi ci moom julli koo xam ne ci suñu rakk xol yëpp di fajoo ci la suñu feebar ruux yëpp di wéree ci la suñu problème diggante àdduna ak àllaxira yëpp di jeexee suñu wér gi yaram di matee ci suñu biir ak biti deferoo eh, jamono ji nag bu jamono yu wax ju bëri ndax sama borom taala moo ñu tere ñu yëkkati suñu kàddu barabu yonantu sallallahu alayhi wa ci wàllu yonantu sallallahu alayhi wa loolu nag ñu fi dund dund zahir la ak ñu fi jóge tey dund dund baatin nekk ak ñun ñu ci fu mu mënta nekk rek bu ñu tuddee yonent bi sallallahu alayhi ñoo yëgati suñ kàddu ci kawam rawatina nag nekkee ci jamono ju tedd ji nekk ci barabam tedd bi janox moom kàddu yi sant la kàddu yi béelal moment yi nga xam ne lu néew la muy dajee ci benn jamono alhamdulilah bi ñu yàlla tawfiqale gàmmu gi yonent sallallahu alayhi wa sallam ñaan sama borom ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ak yéen ñi nga xam ne yéenay jot ci vidéo bi ak fu ngeen mënta nekk yàlla boole defaral ñu suñu baaxee defaral ñu suñu baatu fajal ñu suñuy aajo yiñ mën a wax ak yiñ mënta wax te ñëw gi yàlla bu nekk suñu mujj ñëw yàlla nañ fi ñëw ay yoon yoon yoon yoon ñaan yàlla ci barab bi fépp jafe ja boo xam ne jullit yaa ci moo xam fu mu mënta nekk ci àdduna xam ci Palestine la moo xam ci Burma moo xam suñu mbokk yi buur ci Chine moo xam ci Syrie ci Yemen wala ci Afrique Europe Amérique Asie fu mu mënta nekk rek euh, ñuy ñaan yàlla dikkee leen ndimbalam xettali leen ci ñi nga xam ne ñoo leen di jaay doole ak leen di tooñ yàlla defal ko jullit yi defal ko képp koo xam ne ñu ngi koy tooñ ci kaw suuf barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu bokk wax allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima umiqa alxaatimi lima sabaqa nasiri alxaqi bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين